aca jërë ngeen jëf mbokk yi siiwul biir Arène TV laal yoon deel yoon la borom Polycom comme que dañoo nekk si weeru koor nag ñu ngi baalu ñëpp àq di baalu ñëpp àq di ñaan yàlla boole ñu jéggal comme que dañ ni chaque jeudi ñu indi leen li nga xam mooy kàddu amateur yi weeru koor gi ñëw na gaa yaa ngi def ndogu mbër yi mais ñun ndogu amateur yi la ñuy def ndax amateur yi ñooy jàppale li nga xam mooy mbër yi ñooy jàppale woykat yi ñooy jàppale tambour major yi te dañuy liggéey ba wàcc wane seen jéem ak seen daqaar ah ak seen ñëw si làmb lan lañ fa mën a am mooy plaisir mbëri bëree woykat yi woy mu neex tey na dañoo ñëw seeti benn euh, ndaanaan ndaanaan bi ñu seesi nag ku nekk xam na ko boo déggee gars yi ni e, e, grand tafatin bu kalmu nduur waaye tamit gaa yi ni Pape Niass taalibe baay bi ah mu mu axlu làmb Sénégal amateur bu mag bi nee naa la ki nga xam ni kenn la si ñëpp ku xewle ku nekk suba ngoon gu dégg ba ca mu teew ak mu ñàkk bañ a teew loxo mu ngi ci biir boole ko di jëf te kenn du ko wax dañ koy bàyyi ak yàlla waaye baaw kat damay topp ndax nee la comme que macha allah am na place si kanam. waaw garage garage bu mbuur la. waaw waaye tam benn place yi nii. ndeysaan boo ñëwee. boo jógee si garage bi porte bi nga xam ne fa la oto yi di duggee. ndeysaan soo ko rek boo jàddee sa góos. waaw ah nee naa la foo laatee grand tafatin place am comme ne ñëwoon na ko ñaari place yu soriante wuñ. waaw loolu yow mi jugee sax ah, ah, croisement Kaolack sa droite ngay jàddee balaa ngaa jël porte bi nga xam moom la ñu entré. waaw kon dañuy dugg ñu xool place bi. li fi nekk test détaché yi. ak oto boo mënti yor. waaw loo bëgg ñëw rek boo mën yor rek waaw Adja grand baa ngi noonu Babacar. waaw mu ngi noonu ñu ngi lay ziar. waaw dellu ziar. di leen. ndokkeel yëpp ñëpp. kontaan ci yéen bu baax a baax vraiment. jégal tuuti naa laal yoon di sama jarbaat. baaw kër kër si aussi noonu. di sama genn wàll. ak làmb Sénégal ñëw tey fii ci man. ma bég lool ñëw sans place. pièce d'identité rek xam naa ne. waa ak làmb ñu ngi fi xam bari waaw waaw moo tax ñu jaar fi. pour nga mën ñu cee waaw. waaw waay bëgg daal fii ci bagage muy pièce niveau modèle yi. 308. 5008. waaw.

mais bég naa lool. Mm-hmm. buñ jógee fii war a dem kër ga. foofu lay dàqee aussi. fa lay dàqee waaw. kon gars yi rek mm-hmm. comme yéen a ko gisandoo lii lancement bi la. Ah. place baa ngi nii après di ngeen am numéro yi suuf yéen ñi nga a bëgg ah, boo bëgg. nee naa 3000 mètres mm-hmm. ay matériel am dafa jeexee. jafe 5008 même chose. waaye lépp grand bi am na ko mu ngi fii si garage Mbour. di ngeen am numéro am après si suuf bu ko defee ngeen contacté ko bépp matériel boo leen am. wala sax nga yor conteneur. xamoo foo jëm ak moom. voilà bu la koy ah. jaayal ak boo ko ah. wàcceel ah. nee naa la boo ko ko joxee mu teg ko si code yu leer naññi ah nga jël la nga moom mu daal di jël la moom mu daal di dem ndax lépp yoon la ngay teg ndax moom borom baax taalibe Baay Ñas taalibe Baay Ñas la bëggul la daray caaxaan bilaahi bala daray caaxaan ñàkk caaxaan rek lamb jël bu dee bëret waaw midi dem rek daa war a képp ku bëgg pièce détachée ak bu munti doon rek uh-huh. ñëwal fii garage Mbour laajte Grand Tapha Tine numéro di nga ko am suuf boo ko contacté am nga yor conteneur lépp loo si bëgg rek kon gars yi du leen seen baaraam foofu waaw waaw ñu dem kër ga ndogu ndogu loo xam ne après ñu eh, lamb dañ ci waxtaan waaw baax sax waaw kay baax lamb ji kon baax